képp ku fi teew rek sant naa la gërëm naa la surtout maam lee suñu coach ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax tàyyiwul mu ngi sonn ci affaire yi vraiment. mbokki Sénégal mbokki amateuru làmb yi ñu ngi boole ko ak yéen ñëpp di ànd ak yéen ci tiis bi nga xamante ne dal na ci monde làmb mu nekk xale boo xamante ni doomu bawal la woon waaye doomi Parcelles Assainies la woon muy Moussa mu génn àdduna ci di tey jii tombeeg le vingt cinq. avril deux mille vingt deux mbokk yi Moussa nekkoon koo xamante ni nit ku baax nit ku yaatu nit ku bëgg nit waaye nit ku gëm boppam nit ku bëgg rawatina cosaanam mbokki yi bu leen fàtte bi mu duggee ci làmb ba tey mu ngi défendre couleur Bawol waaye mu ngi dox defendre couleur Parcelles Assainies bi nga xamante ni fa la dëkk digganteem ak Parcelles Assainies doon diggante bu rafet diggante ma ak mbëru parcelle Assainies nekk diggante bu rafet képp koo gis mu nekk mbëru parcelle Assainies bu amee komba Moussa jum ànd na ci yow soutenir la taxawu la ba keroog yàlla di la may ndam wala ngay am defet képp kuy mbëru Bawal gis ngeen ci Moussa jum boo xewlee mu ñëw wane ci boppam wane ci taxawaayam Moussa jum moomu tey moo génn àdduna mu nekk loo xamante ni lu tiis la mu nekk loo xamante ne njàqare la mu nekk loo xamante ne képp ku ko jege nekk prosam di ay mbër fexe nañ leen woo waaye buñ leen jotee mbokk yi li ñuy dégg ci ñoom mooy xol bu tooy xol bu tigis kenn mënu cee wax mbokk yi ñu leen di koy jaale di ko jaale képp koo xamante ni amateuru làmb nga waaye képp koo xamante ni doomu bawol nga mbokk yi di ko jaale képp koo xamante ni doomu Parcelles Assainies nga di ko jaale mbëru parcelle yëpp mbëru bawal yëpp di ko jaale Modou Lo le roi des arènes di ko jaale Tapha di ko jaale ki nga xamante ni mooy mbay guy gi di ko jaare Ibou Ndiaye Obali Atou Junior waaye duñu fàtte mukk rakkam bi nga xamante ni jege na ko loolu muy bay laat nga xamante ni foo gis Moussa Dioum gis ko ci wetam mbokk yi nag yàlla suñu borom li gën rek lay def te li gën mooy Moussa jum génn na àdduna mbokk yi ñu koy massaw baax a baax a baax di massaw njaboot gi mu fi bàyyi di ñaan yàlla na leen suñu borom teg loxo ba fépp fu leen Moussa jum féete woon suñu borom féete leen foofu kawe njort ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax a baax mbokk yi loolu lañu amoon di leen ko yëgal di leen jéggaluwaat bu baax a baax a baax di leen wax nii yàlla na leen yàlla may xolub muñ jërë ngeen jëf. bu deful loolu bu deful loolu xoolal gars yi xoolal xeetu nit yi mel ni ku ñu xam nga kii ku nii buñ ko wutalu combat mu bëri lu ne mën naa xew ci mim réew nañ ñu jàppale noo loolu yëpp ay sa sa sa loolu lépp xamante nañu ay mbalak la xam nga dañoo bëgg li ñu fi indi ñëpp prêter si attention déglu ñu bu baax xam ne ñun ay noble lañ ay nit lañ. parce que boobu ba léegi ci làmb ba ba léegi ba corona bi amee ba léegi musoo dégg benn mbër bu yëkkati parole wax wala mu kii toujours ñu ngi suñu coin nekk suñu ruq xam li ñu bëgg parce que tey ñun gën a ñun ñooy ñoobalu dëkk bi mbëri la ñu ñëpp di wër amul amul amul koo xam Macky Sall sax toog na fi télé ne ne ne ne ku sañoon jur mbër léegi nag loolu bu ñu ko yàqal ñu bàyyi ñu jëflante sumbante yoonu soo ko dafa gën ma ko namm ci làmb ji xam nga ne Balla Gaye bombardier ah Modou Lo Ama nga xam ne moo war a dekki làmb Papa Sow ak Siteu moo ñooñ dama leen a yërëm barki yonent yàlla moo xam ne dama leen a yërëm dama leen di ñaanal nag dama leen di ñaanal nit ñi jàppale leen parce que deseetuñu dara ay tafa mbër yi nga xamante ne nii ay 20 lañ leen jox ñooñu dee nañ. xale lañ koy roog énergie ñoom Tafa Ndiaye. moom mooy Bour Sine ñu ngi koy jaale papaam fan yi passé dafa gaañu euh, Dame Suger booy yëpp ñoom ñëpp dañuy ñëw di jàpp si ak Boulalaye séeréer ñoom ñëpp ñu ngi ko doon jàppale ci contact yi di ko jàppale ci yëpp pour rek rek pour yàlla may ko ak ñoom maama yaa képp ku fi teew rek sant naa la gërëm naa la surtout maam lee suñu coach ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax tàyyiwul ñu ngi sonn ci affaire